المحامد لمن يعصمنا مسليا على الذي يؤمنا كل المحامد لمن يعصمنا مسليا على الذي يؤمنا mbokk yi kon jotaay baa ngoog jotaay boobu ngeen di gis mooy jotaay bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bachirou seq ak doomam sëriñ Abdul Hakim Mbacke moom sëriñ Moustapha Bachirou di jotaay bu daw yaram jotaay bu bari pasteef lool ndax kaddu yi nga xam ne moom la sëriñ bi yëkkati jëmale ko ci sëriñ Abdul Hakim doomam dafa nekk kaddu yoo xam ne kaddu yu am am solo la wan ko ne ko liggéey bi daal li tax ma jox la ko du dara lu dul euh, sa pas ci sëriñ bi xam gu ma xam sa bëgg sëñ Touba xam gu ma xam sa pasteef xam gu ma xam sa dogu ci liggéeyal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul loolu moo tax ma yëkkati liggéey bi teg ko sab loxo muy kàddu yu tukkee ci sëriñ Mountakha Mbackeem sëriñ Bachirou jëm ci doomam sëriñ Abdoul Hakim Mbacke moom sëriñ Moustapha Bachirou Mbacke ci jumaa ji nga xam ne moom la koy liggéeyloo foofu ca Bambey mu nekk kàddu yu am solo. ko defee kon mbokk yi xam naa vidéo bi nga xam ne moom la leen di présenté nii mooy doon vidéo boo xam ne di ngeen ci déglu ci kàddoom moom Serigne Abdou Hakim entrepreneur yi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi architecte yeeg mboolem boroom xam-xam yi nga xam ne ak mbokki bi yi tàbbal seen loxo ci liggéey bi di ngeen leen dégg ci anam bi nga xam ne noonu lañu ñu war a sóoboo ci liggéey bi ngir lii Cheikh Mountakha Mbacké bëgg ngir liggéey jumaa foofu ci Bambey mu mën a sotti incha allah kon xam naa kon nee nañ def mooy bàyyi leen ak waxtaan yi nga xam ne seq nañ ko ak ñoom bu ko defee incha allah mu mën a indi ay leeral ci doxi bu ak liggéey ba anta allazi awlaytana ma yurabu fadlan fa kufana bi ma yurhabu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 ci jumay jumaay Cheikh Maodou Mountakha yi nga xam ne moom la dégale woon fii ci département Bambey muy Bambey ak li ko wër ñu toog ak sunu kilifa gi nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéey bi ci loxoom muy sëriñ Abdou Hakim Mbacké ñu bëgg a tàmbali nag waxtaan euh, mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo teew fii ñooy ñi nga xam ne ñoom la sëñ sëñ bi dénk liggéey bi ñu di ko saytu kon nag ñu tàmbalee wax ne ñu ngi jox kàddu gi sëriñ mu euh, sëñ euh, Abdou Hakim Mbacké moom Cheikh Moustapha moom sëriñ Bassirou sëriñ bi teg ko sunu kanam. jiital ko ci liggéey bi mu ànd ko waa département bi yëpp bisimilah. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sof nag sunu wax ci eh, kàddu sëñ Babacar yi nga xam ne moo jiitu eh, mu doon ab laaj ab laaj la laaj jëmee ko nag ci eh, kan sëriñ Abdul Akim Mbacke comme ni mu ko waxee ibnu Cheikh Moussa Bachir. xam ne fii ñu toog nag tey jii ci pàkku jumaa ji moo fi toog toogaayu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké sëñ Abdou ñoo ngi lay nuyu di la Eh, di la jox sa waaye di ñaan yàlla na nga yàgg jiite liggéey bi nii nu ko àndee ci tàmbali gi yàlla nañ ko àggal ca nga ba nga jox sa waajur yu caabi yi te kenn bañ a manqué eh, liggéey bu toll nii nag sa waajur wa nësër ko ci Bambey ne waa Bambey ak li ko wër la ko sas liggéey boobu nan la ñëwee ci yow sëñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk fi teew yëpp di. ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha sa borom gën a guddal fanam te yokk wéram ba naal yi mu naal ci yoonu Sëriñ Tuubaa yëpp mu àggale ko ni mu ko bëggee ne ko waxe sëñ Mamour gannaaw bu ñu nuyoo sëñ Mountakha nuyu euh, sunu sunu sunu borom kër laa ko mën a waxee Cheikh Mamadou Cheikh Moussa Nawel mi nga xam ne mooy sunu buntu ci Cheikh Moustapha Bachir euh, nuyu itam sunu sunu waajur sunu xarit sëñ Abdou Samad mi nga xam ne euh, moo fi yebal ndaw yi ndaw yi fi ñëw ci moom lañ bàyyi ko ci euh, ci ndigalam lañ ñëwee itam te moom mu yàgg yëngu ci ji lool ni ma ko waxee rek sàng maa ngi fàttaliku 2004. Euh, ñaanoon naa sëñ Moustapha jàkk ju may jullee fii ci kër gi ci Bambey mu ne ma dangay néeg ni ko tuuti ndax si Abdou Samar kat na ma ñaari ñaari yoo xam ne benn bi ci Mbacke Bawal beneen bi ci sama kër gi laa ko dinaa ko def fi bu euh, te ñaar yëpp si Abdou Samar moo ko moo ko yàgg yëngut ci wàllu wàllu jumaa la bu ci liggéeyal maamam naa loolu sax bokk na sawar bi tax mu gën a sawar ci ndawam yi ñëw fii <coughs> bu loolu weesoo itam may wax ne li ma njëkk mooy sant yàlla sant yàlla ci bi ma yàlla defalee ñuy liggéey sëñ Tuubaa Cheikh mun taxa ma doon ca dara bañ may wooyee jëwriñ ca loolu maa ngi koy sant yàlla bu baax a baax ndax ku amoon yéene liggéeyal ku laa euh, ndax liggéey bi dama ci am ay cër yu bëree bëri ndax yàlla daa dogal muy sëñ Tuubaa tey kenn ku nekk war koo liggéeyal war ko jàppale ci liggéey bi euh, te moom ab liggéey liggéeyalam sëñ Tuubaa moom da ko bëgg a yaatal yéemale ko rek ci ci Touba wala Dakar wala fenn waaye bu sañoon dëkk bu nekk sëñ Touba dafay am mandarga moo xam ne mandargam lislaam moo xam ne ku xool sax dem sëñ Touba. ndax gis nga suñu mbokkee naari sax yenn saa yi bu ñu defaree eh, juma mbaa jàkka dañoo seen seen seen table def fa eh, wane na ñoom ñoo ko liggéey kon nag toll nañ jamono joo ni eh, liggéey sëñ Touba ci lislaam dafa dafa a feeñ dañ ko war wane mu mel ne sëñ sëñ Muntaxa rek di liggéey sëñ Touba ci ci loolu ci loolu nag la Bambey amee tawféex ju rëy rëy euh, sëriñ bi wut fi bërëb bind leeta jox ma ci euh, deux mille deux mille dix-neuf la woon ni ma nañ wutal bërëb bu yaatu boo xam ne euh, dana mën a def juma dana mën a def daara ju ñu jàngale alxuraan dana mën def dëkk dëkk dëkkuwaay. yàlla dogal booba ki ñuy wax Gana mbay moo fi nekkoon maire mu góorgóorlu ci loolu wax dëgg yàlla taxaw ci bu baax a baax ba ci deux mille vingt bi. mu mu mu ñu ànd ak man ci bërëb bii. Eh, ni man ndax fii baax na ma ne leen fii baax na. Mm-hmm. te fii itam nekk bërëb boo xam ne day mel ni fàggatu Sëñ Tuubaa rek ndax eh, mag ñi fi nekkoon nee nañu bërëb bii nii eh, war nañ fee war nañ fi fi ñu war a téye téye Sëñ Tuubaa bi néew bi néew gu njaareem mm-hmm. waaye ñenn ci conseil conseil Tuubaa bi ni ni ko boo ko defee defee fii te si Aliou Diouf Lambaye ñoom nekk Lambaye gi ak ak ni ñu mel ci moom. su boobaa euh, du sotti sotti moo tax ñu jàll ko sax ba am na góor gu Baay Faal bi kon fii tam goo xam ne ko fonkoon bërëb bi la di fa baagante di ko di ko euh, di ko toppatoo yooyu yëpp day mel ne Sëñ Tuubaa moo ko dencoon ndax bërëb bi euh, dafa mel ne dañ ko fay bàyyi woon rek ngir ngir ngir lii ndax titre fossé la te kër yëpp lañ dëkkee maa ngi li ko war a yëpp mel ne moom moo fi desoon te day mel ne état bi moo kon dafa mel ne sëñ Tuubaa rek moo ko mënoon laaj laaj jox ko ko ndax bërëb bërëb bu am solo la. waaye sëñ Muntaxa xaari ko dara dara lu dul bind jox ma ni ma li ma bëggoon daal mooy ñu defal ma fa jumaa ju yaatu ju méngoo ak jamono. ñu defal defal ko yàlla ak yonent ak sëñ Tuubaa. bi nga xam ne jot naa ci ndigal itam ah, ci yàlla lool ci laa ñëw woo mbokk taalibe yi woo daay daay daay daay yëf yi yëpp ñu bokk toog toog waxtaan. Euh, euh, tëral tëral tëral nañ ko war a liggéeyee ba yàlla dogal yàlla dimbale ñu defar ñaari maquette euh, jox ko sëriñ bi ni ko mu tànn boo ci boo ci neex mu tànn mu tànn maquette bi nga jël nii nii man man mën naa mel nii. entrepreneur moom moo liggéey plan bi mu def mu def yëpp waaye moom maquette lañ ko jox du jox maquette bi nag yaakaar naa li ñu gisagun rek mel na ni kon maquette yaakaar yaakaar naa bu sottee dara du leen wutale waaw ñu xam ne daal liggéey bi moom liggéeyu sëñ waala la maanaam euh, jumaa ji nii jumaa sëñ Muntaxaa la ko la ko waa Bambey tudde waaye dama bëgg ñu xam ne rek jumaa ji dafa bokk ci liggéey sëñ liggéey sëñ Muntaxaa yi muy liggéey sëñ Tuubaa waaw maanaam bu bu wax naa ko sëñ naa ko bëgg mooy buy def buy def bilan ci li mu liggéey sëñ Tuubaa liggéey bi ciy bokk ndax ab liggéeyam bokk bokk ko kenn ndax moo joxe moo joxe moo joxe bërëb bi li nga koy liggéey tam mën naa moo ko joxe ndax moo joxe baatam te baatam boobu moo ëpp ay milliards waaw depuis ba mu joxee baram boobu day li ci waaye def rek baram boobu da nga moo moo tax nga def ko. kon moo joxe bëri moo joxe moo joxe moo joxe euh, li ñu ko liggéeyee kon xam naa ne euh, ngir ban cee sori rek damay bàyyi bokki bi yi kenn ku nekk la mu yore. mo mu leeral ko. damay leen wax rek ndigal li ni mu euh, ni mu ñëw ci ak li ko sabab. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maay secretaire général bi man Mamour Sy ndax ni ko sëñ bi waxee ba ndigal da jege Tuubaa ba tàbbi fii sëñ bi moom nelawatut gëmatut. dane na ngeen sos kuréel goo xamante ne mooy ngànk liggéey bi ndax dafa war a tàmbali te du taxaw incha allah moo tax ñu samp euh, ak kuréel goo xam ne am na lu mat juróom-ñetti commission commission ba ca njëkk mooy la commission présidence xam ne moom moo nekk ca kaw xam ne tey lii tey bu doon kër euh, ni commission yi mooy néeg yi waaye nag kër ga ci biir néeg la euh, néeg yi ci biir kër ga la ne te présidence boobu sëñ Abdou Hakim Mbacké mi moo ko jiite. am na itam la commission coordination sëñ Babacar Ka jiite ko topp ci sëñ bi euh, am na itam euh, li ñuy wax commission euh, administrative ñu mën ko tuddee aussi aussi secrétariat général man mii maa ko jiite am na la commission gestion technique gestion technique boobu ku ñuy wax Serigne Khadim Ka moo ko moo ko jiite am na aussi la commission communication communi commission communication boobu Serigne Babacar Ka mi nekk coordonnateur moo jiite également commission boobu am na commission trésorerie commission trésorerie également ki ko jiite mooy euh, Serigne Moustapha Sy ànd koog euh, rakam El Hadj Koumba Seck di ko ci jàppale. la commission organisation aussi am na ci biir euh, kuréel gi ndax kenn ku ne xam na organisation dafa am solo. ndax kuy def lu mel nii il faut des fois ngay organiser loola itam euh, Serigne Maguette Sarr moo ko moo ko yor moo yor commission euh, organisation am na itam euh, commission collecte de fonds ndax itam lii moom kenn ku ne xam ne ne xaalis moo koy defar te nag xaalis boobu des koy wuti commission bi nga xam ne moom lañ teg nag ñuy lal ay pexe ak i tëralin pour wuti xaalis pour wuti ay fonds Euh, sëñ Magaye Sarr meilleure organisation également moo ko moo ko jiite suivi évaluation ndax dafa baax ci leen lu nekk nit boo ko jëlee jox ko liggéey ne ko liggéeyal ma ko ah war naa am ñu topp ci am di xool ba xam na muy doxee gaaw na wala gaawut na muy def baax na wala baaxut suivi évaluation boobu ku ñuy wax Bekaay Ndiaye moo moo ko jiite. li ci am solo ci loolu mooy sëñ bi dafa insister ci commission bu ci nekk fi mu ne nii ka ko jiite maanaam commission ban ko jox dafa géeju ci loola. tey jii boo nee commission euh, recherche de fonds ñoom Maguette Sarr ñoom ñi ko jiite daayira yi Bambey yëpp dañ cee nekk di ci yëngatu di yëngatu yoonu Serigne Touba bi am expérience boobu trésorier yi également soo ko gisee ku mel ne sëñ Moustapha Sy ñu jox leen ko ñoom itam loolu day seen domaine. commission technique bi nga xam ne seen xaadim ka moo ko jiite xaadim ka également ci lii lay liggéey lii ñuy def nii ci lay liggéey kon am na ci am na ci xam-xam bu dee ni suivi évaluation Bekay Ndiaye mi ngi ko jox. mooy nekk le planificateur régional de la région de Louga région de Louga ci planification moo ko jiite kon ku ko xam la sëñ bi kon dafa jël commission bu ne ña ko xam mu jox leen mu mu jiital leen ca toftal leen ci nag ay nit yoo xam ne ñoo leen koy ñoo leen cee jàppala ñoo leen cee jàppal jàppale commission yooyu itam bi ñu ko euh, tegee bureau boobu lañ lañ commencé nag liggéey parce que ci la ñu jóg képp koo xam ne nitu diine nga ci dëkk bi yëgal nañ la ko mooy mbokki ba mbokki boppi sëriñ bi mbake mbake yi ak cheikh sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo àndan ak moom ñoom ñëpp yëgal nañ leen ko ku fi imaam yëgal nañ leen ko yëgal nañ ko autorité administrative yi yëgal nañ ko autorité territoriales yi mooy maire yeeg yooyu douze maires yi nga xam ne ñoo fi am ak conseil départemental ñoom ñëpp kenn ku ne information bi àgg na ci yow délégué de quartier yi également ñoom ñëpp yëgal nañ leen ko pour bi kon Euh, képp koo xam ne war nga koo yëg rek commission bi yëgal nañ la ko ban ko yëgee nag ci la ñuy def pose de la première pierre le 12 juin 2022 depuis booba ba léegi nag ba tey jii ñu toog fii di waxtaan ak yéen liggéey bi taxawul kon foofu daal lañ ci toll ci ci structure boobu nga xam ne sëñ bi sant ñu teg ko euh, kon noo ngi gërëm bu baax a. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki jullit yi dégg suñu kàddu yëpp tey santaat yàlla bu baax ci jotaay bi. di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barkeb sëriñ bi di ñaanal itam sëñ Abdou Hakim mi nga xamante ni mooy jëriñu liggéey bi di sunu kilifa tamate ko loolu itam suñu borom dolli koo dimbali ba liggéey bu rëy bu tedd bu selli bii nga xam ne moom la ko sëriñ bi jiital ci kanam mu dem ba jébbal ko sëriñ bi comme ni mu ko bëggee te ànd koog taalibe yëpp. mu mel ni bi ndigal li ñëwee ba sëriñ bi samp bureau bi ku ne xam ne buñ koy def dana laaj am koom. bi ci leen daal commencé xalaat ñu ànd koog mboolem mbokki taalibe bi yëpp rek nan nan lañuy def ba mën a dajale ay xaalis ci loolu lañ jëkk a xalaat ñu xalaat defar ay carte ngir carte yi mën naa tax taxawaay pour wàllu communication ngir yëgliwaale liggéey bi ngir képp ku ci wecceeku wala koo ne kaay ma wecc la carte boo waxee ñu dan lii kat ci jimaay Seex Mamadu Muntaxa ci la jëm bi loolu jaale itam ñu amaat yeneen xalaat ndax am na ñoo xamante ne dañuy ñëw di jël seen alal di ci joxe am na ñoo xam ne matériel la ñuy def am na ñoo xam ne xaalis la ñuy joxe ci biir loolu ci année 2022 bi nga xamante ni ci la ndigal li ñëwee li nga xamante ni yàlla dogal na daje nañ fi ci wàllu carte mi ngi nekk ci 12 millions 354 mille 600 620 loolu mooy li nga xamante ni carte yi génn na ko ci année 2022 bi li nga xamante ni xëy na génn na ci wàllu espèce maanaam xaalis yi nga xamante ni mbokki taal bi dañ ko doon barkeloo mi ngi toll ci 19 millions 249 loolu mooy li nga xamante ni yàlla dogal na deux mille vingt deux bi sunu boom dogal na mu dugg si ci. biñ ko dajalee ñaari som yooy mi ngi nu jox mi ngi nu jox trente million un cent quatre mille quatre vingt cinq ñu jébbal ci trésorier trente et cent quatre vingt dix huit mille cinq cent. loolu mooy li nga xamante ni deux mille vingt deux bi dajaleen ko ci ab xaalis ci wàllu matériel am nañ ci soixante huit tonnes ciment yu teg fukki saak ak juróom. ci wàllu beton am nañ ci 20 mètres cubes ci wàllu suuf am nañ ci 3 sart yoo xam ne 16 mètres cubes la loolu mooy année 2022 bi nga xamante ni génn nañ ko ci bi bi ñu génnee xaalis bi nag bi ñu versé 31 millions 198 mille 500 dafa desoon ci kees gi 4 40 mille 550 40 mille 5 mille 585 mooy li nga xamante ne la ñu versé la temps 2022 fan yooyu ci desoon. moom na fi dajawaat ci xaar ci xaar ci 2022 bi loolu lan démarré sunu sunu kees 2023 bi 40 mille waaw sa waaw léegi biñ ñëwee ci 2023 bi ñi ngi dajale ci mboolem xaalis yi nga xam ne dugg si na fi mi ngi toll ci million 29 millions 385 mille 475 lool mooy li nga xamante ni yàlla dogal na daje na fi ci wàllu xaalis ci 2023 bi 29 millions trois cent quatre mille quatre cent soixante quinze ñu verse ci trésorier vingt neuf millions trois cent quatre vingt deux mille huit cent soixante quinze soo boolee ñaari somme yooyu muy somme deux mille vingt et un deux mille vingt deux ak deux dañuy jox soixante million cinq cent quatre vingt mille trois cent soixante quinze loolu mooy li nga xamante ni yàlla dogal na dajaleen ko ci deux mille vingt deux bi ak deux mille vingt trois bi soixante millions cinq cent quatre mille trois cent soixante quinze moom lañ jébal trésorier ba fii may wax yow li ñu jàpp ne moo des ci kees muy deux deux mille six cent francs ndax démb lañ ko mujj a defal versement deux mille six cent moom moo mooy li moom moo ci des. ci deux mille vingt trois bi ci wàllu matériel ciment lañ ci am mu toll ci trente trois tonnes ciment loolu mooy li nga xamante ne yàlla dogal na ah dajale nañ ko fi. liggéey bi nag comme ni ko sëñ bi waxee sëñ bi daa namoon mu yaatu moo tax bépp xalaat boo xamante ni war nañ ko mën teg wala bépp doxalin boo xam ne war nañ ko mën a teg ngir liggéey yaatu teg nañ ko moo xam ci biir dëkk bi. moo xam ci biti dëkk bi département bi moo xam seex yi la moo xam euh, chef de village yi la moo xam autorités yi ñëpp képp koo xamante jàpp na ni war na noo mën def ay effort ngi nga yëg liggéey bi yëngu ko 2022 bi nag xëy na effort yi ñu gën a def yëpp ñu ngi ko commencé woon ci biir dëkk bi biñ duggee ci 2023 bi nag comme ndigal li lii nekkan bëgg bëgg sëriñ bi ak yéene sëriñ bi fépp fu ci war a dem ñu dem fa ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha dani Bambey ak li ko wër kon képp ku dëkk Bambey rek warteef la ci ni ko sëriñ bi jàppe mu dem déplacé ba ci yow ni la ndigal lii kat moom la ma sëriñ bi jox te ñun la ko boole te ñoo ci yem képp moo tax ci 2023 bi ci jàppandalu secrétaire général sëriñ Mamour mu def ci liggéey bu am solo mbooleem communes yi nga xamante ne moo na ci biir département bi yëpp mu recensé commune communes yëpp village yi ci nekk chaque commune village yi nekk xam na ko am na fa koo xam ne doon jug dem bu ñu demee ci kooku la ñuy jaar mu mën na orienté am na ci ñeenti communes yoo xamante ne yàlla dogal na dem nañ fa village bu ci nekk am nañ fa koo xamante moo fa représenté liggéey bi bu buy jël sëñ bi amee ku mu ci yokkal moom lay jokkal ci liggéey bi ñeenti communes yooyu nag wax di yàlla ñu def ci liggéey bu am solo lool bu kawee njot lool comme ni ko Bambey defee ndax Bambey tam wax dëgg yàlla bi ndigal li ñëwee xam na ni kenn waru leen cee jiitu ken waru leen cee ëppale moo tax ñu am ci taxawaay bu mat sëkk doxal ci doxal boo nga xamante ni wax dëgg yàlla yéeme na lool di santaat yàlla bu baax nag di wax ni commune yi nga xamante ni yàlla dogal na àggagun fa sëriñ bi mi ngi leen di xamal ni bu li li li yéene mooy dem ci ñëpp te loolu la def incha allah mais mënta demandoo ci ñëpp ndax daa war a dem ci ñëpp te ci ke fenn rek la mën a commencé kon képp ko xamante ni suñu yàlla dogal na ñu commencé ci yow liggéey bi jàppal ni mën nanoo war a mujj ci yow képp koo xamante ci yow itam jàppal ni mën nanoo jëkk ci yow ndax da la nga war a jàppee ni yow da ngaa a ñëw takk sa ndigg ànd ak sëriñ bi fu muy dem nga dem fa soo toogee di xaar itam sëriñ bi tam xaar gi liggéey bi moo yaatu da koo bokk mu am ci yéene jox ci ñëpp moo tax mu ñu ngi sant yàlla bu baax di santaan mboolem ñun seqal liggéey bi ndax gis nañ pësteef ak yitte ji nga xamante ni jox nañ ko collecte dafa te collecte dafa bi wax dëgg yàlla ku ne xam ne ni mooy liggéey bi kon yàlla ñi ngi sant ñëpp di ñaanal Cheikh Abdoul Hakim ak sëñ Babacar mi coordinateur bi ñu wax dëgg yàlla ndax alhamdulilah daal. asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, di nuyu ñëpp rek di ziar ñëpp. Eh, bi nu jotee ndigal li rek eh, ci sëñ bi mu wax ñu ñu defar commission trésorerie bi li ñu njëkk a def mooy tijjib compte waaw bi ñu tijjee compte bi nag nga xam ne lépp bépp xaalis boo xam ne nii sëñ mëgëy jot na ko mooy commission commission bi collecté fonds yi jox nañu ko dañ koy versé ci compte bi léegi su ko defee pour mën gérer dépense yi nga xam ne nii eh, dépense courante yi nga xam ne kii dañoo defaat lu ñuy wax caisse d'avance nga xam ne valeur u cinq cent mille la nga xam ne dañuy def expression de besoin ñun jox ko sëriñ bi sëriñ bi signé ko ñu doog a am sañ-sañu mën a dem ca banque ba génne fa génne fa cinq cent mille yooyu téye ko ndax léeg-léeg ñu ñëw ne la euh, benn commission ne la sox yitte woon nañ lii wala yitte woon nañ lii loolu doo man dem saa saa su ne ca banque ba looloo tax ñu def caisse d'avance googu. Mm-hmm. waa nga xam ne nii moom du du bu baree ba bari du cent 500000. léegi ginnaaw si loolu euh, sëñ Maguette bu ñuy jébal xaalis bi dañ koy defal décharge signé moom it mu signé mu signé ne jox nañu nangam ci bis sangam ñu nit ñu signé daal ne jot nañ ci moom nangam ci bis sangam. Euh, lu ci nekk rek loo xam ne ni ñëw na ci xaalis noonu lañ koy noonu lañ koy noonu la noonu koy defee léegi bu fekkee ne it euh, euh, ci ci foofu rek ngir leeral tey jii nii ñun duñ génn rek ku dajee ñun jox ñu xaalis déedéet benn buntu la am ci sëñ Maguette lay jóge moo tax ku ñu dajee ñu nit wax ñu dan dañ koy jël daan ne la demee ci sëñ Maguette nga versé ko wala suñu buñ ko jotee sax dañ koy delloo sëñ Maguette sëñ Maguette doog a ñëw ci ñun ñu doog koo enregistré comme comme entrée noonu lañ koy def su ko defee nag loola nag ñu jël ko doog koo déposé ca ca ca compte ba euh, léegi bu fekkee ne ci wàllu génne xaalis bi ci ñaari anam lay génne euh, bi ci njëkk mooy expression de besoin nga xam ne ñi nga xam ne ñoo jiite commission yi koo xam ne bëgg na cee def ab activité man ngaa bind sa expression de besoin yi boobu def nañ ay fiche nga xam ne fiche yooyu noonu bu ko demee jébbal ko sëriñ bi bu ko sëriñ bi validé léegi day ñëw ci ñun bu ñëwee ci ñun nag ñu doog a xam ñu jël ñu jël addee ja nga xam ne mooy méngoog sa activité boobu doog la koo jox suñ la ko joxee nga def décharge wane ne jot nga sàngam bi sàngam ñu boole expression de besoin ba ak décharge ba yëpp daal di jël daal di koy classé euh, beneen euh, type de sorte bi moom mooy moom mooy demande de nga xam ne moom suñu diggante ak entreprise bi la nga xam ne entreprise bi euh, bu fekkee ne euh, def na euh, kii bëgg na avance wala yu demee noonu day def demande de paiement demande de paiement boobu bu ñu ko joxee dañ koy dem aussi jébbal ko kii président bi mu xool moom ak coordonnateur ba xam dañ koy valider am déet buñ ko valider du tax ñu jox entreprise bi xaalis dañ koy yëkkati joxaat ko waa commission technique bu ko waa commission technique validé daal di ne kat lii mu laaj kat jaadu na méngoo na ak li nga xam ne moo nekk ci sarti contrat bi ñu doog a mën a yëkkati loolu jox ko. waaw loolu it aussi it euh, euh, yaakaar naa ne ban commencé ba léegi noonu la ñuy noonu la ñuy kii saa demee nag ba def benn étape ba def euh, liggéey ba tollu fenn fi léeg-léeg ñu dugal demande de paiement saa yu dugalaatee noonu rek lay jaaraat nga xam ne ni bu ko sëñ bi validé ñu jëm wax bi tegtal bi ma ci joxe nii rek mooy. ci booru màggal gi am na demande de paiement boo xam ne dugal na ko bin bi ko bi ko sëriñ bi validé bi mu ñëwee ci manit dama koo jël daan jox ko xaadim xaadim ne ma li mu dese ci liggéey bari na li nga liñ ko bëgg a joxe noonu méngoo wut ak liñ kii kon donc nan ko jox nangam moo tax lam mu demandé woon joxuñu ko ko dañ koo jël dagg ko par rapport ak la xaadim wax ñu daal di ko koy jox waaw loolu it aussi ab leeral la boo xam ne it aussi bëggoon nañ ko leer li jëm ci nekk montant bi ñu jot ak yooyu yëpp damay bàyyi suñu élage mu mu mu mu mu yaatal ci maa ngi. asalaamaaleykum mbokk taalibe yi comme ni ko sëñ Moustapha euh, dooree rek euh, commission trésorerie euh, muy li nga xam ne mu ngi jublu ci lépp luy génn xaalis ak denc xaalis moo nekk sunu liggéey maanaam entreprise bi li ñu warloo woon ak moom ci. maanaam étape yi muy liggéey defagun nan ñaari ñaari phase premier phase bi moo nekkoon phase fondation bi nu waroon a euh, euh, commencé tàmbali liggéey bi coût phase fondation bi mu ngi tolloon ci trente huit millions euh, cent quatre vingt dix sept mille quatre cent quatre vingt loolu moo nekkoon kii bi coût phase fondation bi. léegi boobu noonu ba nga bi niñ ci jot joxe ci entreprise bi mm, mu ngi tolloon ci vingt neuf millions quatre cent cinquante neuf mille deux cent quarante moo nekkoon li ko jox ci liquidité mooy xaalis boo xam ne lu ñu tënk la téye ko jox ko li nga xam ne jotoon nañ fee ñëw ci matériel aussi ndax euh, dafa am ñaari euh, ñaari euh, matières yi nga xam ne day ñëw soit lii day ñëw par xaalis ñii day ñëw par matériel. matériel bi ñu fi dajale woon li ñu ko jox ci ay ciment béton ak yooyu yëpp ko xayma mu ngi toll ci cinq million neuf cent soixante dix huit mille cent dix sept francs ci premier phase bi toujours am na ci ay étapes yoo xam ne dañuy soxlawoo liggéeyu mbooloo mbooloo mi moo dikkoon euh, def liggéey bi nga xam ne entreprise bi euh, ñu ànd kook ñoom euh, mu ngi tolloon ci trois millions zéro cinquante six mille cent vingt cinq léegi buñ ko boolee yooyu yëpp. mooy coût bu première partie bi muy 38 millions 497 mille quatre cent 480 jot nañ ko jox entreprise bi ba mu mat avant ñuy tàmbali deuxième phase bi moo nekkoon élévation élévation bi coût élévation bi premier partie élévation mu ngi tolloon ci 17 millions 730 mille 300 ci liquidité liñ ko jox ci deuxième phase bi ci xaalis bu ñu mën a tëkk ko mu ngi toll ci 15 millions 225 mille francs li ñu dajale woon ci matériel mu nekkoon ciment boo xam ne xayma nan ko def ko xaalis euh, mu ngi toll ci deux millions cinq cent cinq mille léegi boo ko dajalee kon deuxième phase bi jox nañ entreprise bi dix-sept millions sept cent trente trente mille euh, trois cent boo ko boolee yooyu yëpp ci entreprise bi ni nga xam ne jot nañ ko seq entreprise bi euh, ci ci résumé maanaam ci xaalis bu ñu mën a takk téye ko jox nañ ko jot nañ ko see jox 44 millions 684 mille 240 ci xaalis bu fekkee matériel la maanaam ay di jël ci ay ciment ay fer ay béton ak suuf yi nga xam ne mbokk taalibe yi tamit ñoo ngi koy jàpp ci liggéey bi ba nga ko xaymaa mu ngi toll ci million 8 millions 483 mille 117 francs boole kook li nga xam ne mbooloo mi moo ko liggéeyal entreprise bi mu ngi toll ci 3 millions 056 mille cent vingt cinq boo xoolee kon bu ñuy def récapitulatif pour entreprise bi ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk waa trésorerie entreprise bi li jot a jóge si ñun jëm ci entreprise bi mu ngi toll ci cinquante six millions deux cent vingt trois mille quatre cent quatre vingt moo mooy li nga xam ne somme yi nga xam ne dajale nañ ko jox ko entreprise bi ci premier phase bi mu géey ak deuxième phase bi kon fi mu ne nii ñoom ñoo ngi leen di xaar ñu pare deuxième phase bi pour ñu mën a entamer troisième phase bi. leneen li nga xam ne sunu mbokk taalibe euh, sëñ euh, Maguette Sarr da koo xawoon a fàtte mooy euh, ci rentre de fonds yi am na beneen feneen foo xam ne am na fonds yu fay dugg mooy ci benn carte Wave numéro Wave boo xam ne jotoon nañ koo benn numéro commercial ma rappelé numéro bi mooy 78 176 49 49 boo xam ne Euh, ci ni ñuy liggéeyee ñun ak moom mooy numéro boo xam ne ñëpp ci euh, mën a tabbi ku ca dugal xaalis moom dina ko gis ndax numéro bi téléphone bi ci moom la nekk waaye code bii retiré xaalis ci ñun la nekk mun waa trésorerie kon lu fa dugg rek ñun ñun mun na demee dañ koy saytu bu génne waree am ñu daal koy génne mën koo dugal ci ci ci ci ci ci ci fond wu bi foog naa loolu moo nekkoon li nga xam ne jot na ñu ñu leeral ko ci ci ñun ak entreprise salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi siyaar mbokki jullit yi di siyaar mbokki taalib yëpp tey jiital si nuyoo bi sëñ Abdou Hakim moom mu sëñ Moustapha Bassirou ak équipe mu àndal yëpp di wax si turu Athéna construction groupe bi nga xamante ni moo yore wàllu liggéey bi moom lañ jël liggéey bi teg ko si loxoom. man maa ngi tudd Cheikh Mbow di polytechnicien ingénieur génnee école polytechnique de Thiès ànd ak samay euh, équipe technique. ñi nga xamante ne ay ndaw ay taalibe sëñ Tuubaa yi xamante ñoo créé entreprise bi euh, tey sant ak gërëm sëñ Abdou Hakim ak euh, mboole mu àndal yëpp ak kóoli ak kóolite gi ñu am teg ko liggéey bi sama loxo boo gisee sëñ Abdou Hakim li ñu boole depuis 2018 dañu xamante si liggéeyu daaree Kaamir bu sëriñ tuwaa bu sëñ Abdou Lahad bi ndaxte bi ko 2018 bi sëñ Touba sëñ taxaa doonee sëñ Touba bi mu ko joxee liggéey bi. la ànd ak ku ñaan monsieur le maire euh, Modou Diop Guène muy directeur Basel ressource bi nekk Sabadola ànd ak moom jël liggéey bi teg ko sama loxo mu nekk si wàllu étanchéité ak wàllu extension escalier daaray kaamil bi seq nañ tamit yeneen projet yoo xamante yu bari yoo xam si wàllu liggéey si wàllu villa waaye boobu ak léegi ñu ngi sant bu baax a baax léegi euh, bon euh, jumaa ji nag comme ni ko waa commission finance waxee Euh, xéwal googu ñu ñu yëkkati yëpp teg sama loxo teg na jaar sama loxo jóge na si ñoom ñëw si man te lépp dugal nañ si jumaa ji boobu léegi nag ñoo ngi si ñu ngi wëyal euh, xanaa ñaan suñ borom defal ñu tawféex ba ni ko sëñ bi bëggee mu mu jàppandalee ko noonu tey euh, gërëm sama équipe technique bi ma àndal muy ouvrier yi ak sama staff yi def lu dul sant leen gërëm leen tey gërëmaat sëñ Abdou Hakim moomu sëñ Moustapha Bassirou euh, xam ni boobu ndigal li ñëwee si kawam ba tey euh, amul guddi amul bëccëg saa su ne moo ngi si waaw ñun lu ñu soxla suba ba ngoon jot moom ak commission technique am nañ ko lijjee te ko suñu loxo te boobaa nañ ko dugal si jumaa ji waaw kon du ñu def lu dul sant ak gërëm tey ñaan suñu borom mu daal ñuy yeggaleel euh, liggéey bi ba Serigne Touba Serigne Mountakha ñëw ibbil ko boppam ñu ànd ko ak moom barke borom léegi nag dañuy jox micro bi sëñ Babacar Ka coordinateur mu fàttalu ndigal li ci jàngam lettre bi nga xam ne mooy lettre ndigal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu yéen bokk jullit yi rawatina bokki taalibe yi dëkke Bambey ak li ko wër maa ngi leen di xamal ne jox naa Serigne Abdoul Hakim sama doom ndigal ci ci barab boobu ma amoon foofu ci Bambey ngeen ànd ak moom. defal ma fa jumaa ju yaatu te méngoo ak jamono ngeen xam ne nag bu yàlla la ngeen taxawu ko ba mel na war a mel bis bu ngeen jàpp dinaa fa yebal sama ndaw mu ñëw teg si xeer wa digal naa jullit yi ak taalibe yi bëgg lu baax góor ak jigéen mag ak ndaw ngeen taxawu ko ngeen taxawu liggéey bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kàddu yooyu moom mu ja wax mooy kàddu yi Cheikh Maodo Mountakha yi nga xam ne moom la bi yónnee doomam ju baax ji nga xam ne mooy sunu kilifa di sunu sëriñ di sëriñ Abdul Hakim mu wax ko mu jiite liggéey bi nga xam ne moom la ko sant fii ci Bambey muy néega bi yàlla bu rëy bu taaru bu deppook jamono mu ànd ko bokki Bambey yi nga xam ne ñoo dëkkee Bambey ak li ko wër sëriñ biir yaatal na ko ci mbooleem seex yi mbooleem kilifay diine yi mbooleem imam yi ba ñëpp yëg ko kon nag mi ngi woo ñëpp di soñu ñëpp liggéey bi nga xam ne dañ ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim yal nañu ànd ak moom ba àggale ko ci alam rabbi alamin maam ci ngërëmal sëriñ bi te ñu ànd koog moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi kon jotaay baa ngoog jotaay boobu ngeen di gis mooy jotaay bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom sëriñ Bachirou seq ak doomam Serigne Abdoul Hakim Mbacke moom Serigne Moustapha Bachirou di jotaay bu daw yaram jotaay bu bari pasteef lool ndax kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ bi yëkkati jëmale ko ci Serigne Abdoul Hakim Mbacke doomam dafa nekk kàddu yoo xam ne kàddu yu ama am solo la. wan ko ne ko liggéey bi daal li tax ma jox la ko du dara lu dul euh, sa pas ci sëriñ bi xam gu ma xam sa bëgg sëñ Touba xam gu ma xam sa pëstéef xam gu ma xam sa dogu ci liggéeyal sëriñ Touba Xaadim Rasul loolu moo tax ma yëkkati liggéey bi teg ko sab loxo muy kàddu yu tukkee ci sëriñ Mountakha Mbackeem sëriñ Bachirou jëm ci doomam sëriñ Abdoul Hakim Mbacke moom sëriñ Moussa Bachirou Mbacke ci jumaa ji nga xam ne moom la koy liggéeyloo foofu ca Bambey mu nekk kàddu am solo. yaa abiidu abada